monsieur Sarr Pape Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi leen di fay leen mhm, ngay secrétaire général LD Debout ñu waxtaanee d'abord li nga xam ne euh, mooy euh, jàmmaarloo ya ñu nemmeeku woon ca Ziguinchor muy ay way politique euh, ci ñoom lañ ko gis li ni mel mu mel ni moo ngi xeeñ déjà muy sagar si ci local yu ñu jëm tey ban jàngat nga ci def ak ban woote ngay woote ci mbir mi en tant qu'acteur politique. jàngat bi mooy Sénégal fi mu toll dafa soxla dal dafa soxla jàmm mm-hmm. ndax Sénégal yi dañoo sonn te ñu fi ne mënuñu régler seeni problème mm-hmm. donc boole ci fitna day gën yiis day gën a diisal yenn bi mm-hmm. euh, bu fekkee dafa am lu may wax euh, sama moroom yeneen naataango politique yi mooy fàttali ne euh, politique du xulu du saaga du xeex politique ci xel la ak ci xalaat ci jéem ay pexe ci ay pexe ngir situation bi askan bi ne ah ñu gën koo baaxal mm-hmm. waxatuma nag bu fekkee ne situation boobu dara baaxatu ci kon ah, ku nekk ak foo féete war nañoo mën a góorgóorlu ba réew mi ñu mu dal si jàmm mm-hmm. ñu calme situation bi ku ne wax sa xalaat ku ne defal sa programme ku ne defal say proposition ku ne tànn sa candidat prétendre say candidat conseiller mhm. euh, bu ñu noppee ñu déposer liste yi bu ñu déposer liste yi nag ñu waxtaan ak askan wi euh, su boobaa ñu bay askan wi mu tàng kan mooy doon meram kan mooy doon président conseil am kan mooy doon conseil représenté goxam quoi que loolu mooy loolu mooy solo si de euh, vraiment di créer wala di participer créer ay situation yoo xam ne da am ñuy gaañ wala da am ñu siy loru mhm. loolu vraiment war nañ ko mën a teg ci suuf. Mhm. en tout cas ñun el di loolu bokk suñu suñu cosaan bokk suñu aada ñun suñu cosaan suñu aada mooy waxtaan. Mhm. xalaat xeltu génne ay pexe proposer ay pexe. pour que Sénégal jëm kanam pour que gox yi jëm kanam. Mhm. tey mu am benn société civile euh, gi euh, wax ne seen mbébét mooy ñu amal benn charte daal di ci woo euh, coalition de partie yëpp ñu adhéré ci su ko defee li nga xam ne mooy violence duñ ko nemmeeku benn yoon ci yii di élection yu ñu jëm ban jàngat nga ci def tamit. waaw gisaguma ko gisaguma gisaguma këyit boobu. ci parti yi jotagul ko. Euh, ci coalition bi aussi toogaguma fu ñoo xam ne nii wax nañu ne jot nañu ko. Mhm. donc dañuy xaar rek. Euh, bébét la waaye tey jii jàppoo ne li ni mel am na solo lool ngir euh, jàmm mën a am ci mim réew donte ci ay élections lañ jëm. waaw en bépp pexe boo xam ne ni mun naa tax réew mi dana dal mun naa tax ñu gën a mën waxtaan ak askan wi. Mhm. te yett du jóg jaase du jóg fetal du jóg loolu moo gën ci Sénégal. Mhm. Euh, euh, mais gëm naa aussi ne du ci du ci ay kayit du ci ay wax ci jëf jëla kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci langue politique bi mm-hmm. ñun ñoo war a góor war a góorgóorlu d' abord ñun en tant que responsable mais également waxtaan ak sunuy ñooñ mm-hmm. ba lu mel noonu ñu teg ko ci suuf loolu daa bokkul ci aada Sénégal aada Sénégal yi ñëpp ay mbokk lañ da gis benn parti boo xam ne ni benn kër boo xam ne ni benn famille kii day bokk ci parti bi kii bokk ci parti bële kii bokk ci beneen parti mhm. bu ñu ñëw ci kër gi toog waxtaan ku ne wax ay xaatam c'est ça loolu nga war di doxee Sénégal mhm. vraiment man gisuma fi loo loo lu jar xeex ba ay ay nit di ci gaañu ay nit di loolu daal euh, pexe boo xam ne nii mën naa tax ñu teg ko ci suuf mhm. pexe bu ñu mën a bu ñu mën a jàpp la waaye comme ni ma la waxee comme jotaguma seen i seen kii ak seen i proposition xam naa dañuy xaar rek bu ñu jotee moom dañuy waxtaan ci kuréelu parti bi ci kuréelu organisation yi ñu bokk pour ci suñu xalaat. Mhm. wax justement ci jongante yooyu nga xam ne ñu ngi koy waajal ci mim réew LD Debout ngeen bokk ci grande coalition wallu Sénégal euh, donte waxaguñu euh, kan mooy candidat gu ñu tànn fii wala fële euh, waaye tey ndax wax. waxtaan googu waxtaanee ngeen ko jël en compte ku ci nekk leadership bi nga am ci yenn diwaan yi waaw LD bu bokk ci CRD bokk ci la grande coalition walu Sénégal. Mhm. Euh, effectivement problème leadership c'est c'est très normal parce que aussi nit ñi bu nekkee ci politique il faut ñu am gis-gis te boo amee gis-gis da ngay am ay pexe boo amee pexe da ngay am ambition pour réaliser ko. Mhm. loolu donc lu normal lu normal mais li ci ëpp solo mooy ñu am mat. Mhm. taxawaay boo xam ne nii. dinañu mën a may ñu mën a toog waxtaan. Mm-hmm. parce que ci politique lépp dañ ko war a waxtaanee. donc bu ñu waxtaanee mën naa am ñu jubóo loolu moo tax suñu équipe yi ñu waxtaan ci biir tey kaw tey ci ci ci biir réew ci gox ak gox goxaat bi. Mm-hmm. fa xam ne jubo am na fa amul problème foofu dana dana yomb. Mm-hmm. mais fa nga xam ne jubóo amul également ah ñun ñi nga xam ne. ñoom ñu nekk ci base bi ñoom ñoo ñu tànn ñu nekk ci ci direction bi dinañ def ay pexe également ba bokk ci waxtaan bi ba gox bu nekk rek ñu mën faa am euh, ku war a jiite ñeneen ñëpp jàpp ci euh, su ko defee ñu mën a ànd ci ci bi ñu ko tubaab doxee mais également a gañe. est-ce que ñàkk juboo mooy ñu uh-huh, ndax ñàkk juboo googu mënul waral tas comme nuñ koy gisee si ñenn ñi nga xam ne mënuñoo ànd ndax juboowuñu ci yenn localité yi. ci ka jiite kan la ñuy jiital. bon pour le pour le fi ñu tolloogul nii mënuguma wax ne ñàkk a juboo mën naa andi tas. Hmm. waaye yaakaaruma yaakaaruma ko ci li ma jot ci ay information hmm. sunu équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi euh, seen taxawaay. Hmm. ak euh, liggéey bi ñu sumb yaakaar naa ne dinañ mën a am ay ay consensus ay accord yaakaar naa également ne bu demee ba dëgër te amul consensus xam naa ñu bëri ci ñoom dinañ mën a déglu analyse direction bi parce que coalition li ci am solo mooy képp ku ca bokk nga gis ci sa bopp. Mhm. li baaxul kay mooy moom ku ko bëgg a ah kii moom foog ne mbir mi moom pour moom rek la waaye bu fekkee ñun ñëpp dañoo d'accord ne ku ne dañ see war a gis sa bopp su boobaa je crois que euh, euh, ci lu jaadu. Mm. de manière raisonnable. war nañoo mën a am solution. Mhm. xeexu Dakar du yomb euh, jongante gi euh, ndax coow li bëri na déjà ci yenn coalition yi tey yéen ñi ndax waxtaanee ngeen déjà wala ay tur génn na ci ñu ñu ngeen fas yéene jiital fii ci Ndakaaru waaw xam nga man dëkkuma dëkkuma Dakar. Mhm, waaye sa coalition sa parti sa parti bokk na ci coalition mais ni ñu ni ñu organisé woo Dakar nu ngay ci réew mi yëpp. Mhm. sunu camarades yi nekk Dakar ci parti yi bokk ci coalition ak mouvement yëpp ñoom ñooy toog kenn du leen imposer ko candidat mhm. ñoom ñooy toog waxtaan tànn seen candidat buñ juboo alhamdulilah mhm. buñ jubóowul aussi ah dinañ def médiation bi war ba am benn candidat boo xam ne nii euh, ñëpp dinañ ci ñëpp dinañ ci mën a ànd Euh, fi ñu toll nii. Hmm. eggaguñu foofu fi ñu toll nii mooy Dakar ak yeneen gox yi ci département bi dañoo war a installer comité de pilotage. Hmm. départemental. Hmm. Euh, ci commune yi commune bu nekk dafa war a installer ci commune bi. léegi nag comité de bu nekk dangay convoqué assemblée générale boo xam ne nit ñi bokkale ci yëpp dañuy teew dañuy fekkee. foofu nag la ñuy waxtaanee tànn kan mooy seen candidat ak kan mooy nekk ci liste bi ak ku ne fooy taxawee ci liste bi. ñenn ñaa ngi ne Pape Diop lay doon. waaw man euh, mënagumaa mënagumaa yegg foofu dama lay wax rek fi ñu toll. Hmm. Euh, fi ñu toll foofu la ñu toll léegi nag bu fekkee ne ñoom. waxtaan nañ ba jàpp benn tour évidemment kooku mooy doon candidat bi pour la ville Dakar. Hmm. bu fekkee ne waxtaan nañ mu am ñaar wala ñetti candidat également dinañ liggéey ak ñoom ak équipe boobu noonu. Mm-hmm. ba ket ci ñoom man a jiitu. Mm-hmm. waaw loolu jarul yàkkamti loolu kay ñu ci war a liggéey yëpp ñu ngi ciy liggéey. mais problème d' abord waa Dakar la te vraiment ak euh, cadre yi ñu am Dakar. ak mm-hmm. kilifa yi ñu am Dakar. yaakaaruma dina am jafe-jafe. pour que ñu bokk ci coalition bi ci département Dakar ci ville de Dakar. ak ci commune nekk ci Dakar. que ñu mën a génnee ay tur yoo xam ne nii yëpp nañ ci mën a ànd ñu dem liggéey gagné capital bi te loolu bokk na suñu objectif yi gën a yi gën mag. Mhm, ci local yooyu la gis nañ jamono ci ñi euh, ñaa ngi déposé seen i caution mu am tamit lu ñu nekku ci coalition yu bëri euh, dañuy euh, cotiser maanaam dañuy ketal seen bopp xaalis gi jóge fu nekk ngir seen caution ñu mën ko yóbbu tey jii ndax li ni mel grande coalition wàllu def ci inscrire waaye ñun li ñu seetoon mooy ñu def ko ko boo xam ne nii képp ku bëgg a bokk ci élection yi da ngaa war a bokk. Hmm. parce que caution warta doon barrage boo xam ne nii ku am xaalis nga bokk ku amul xaalis doo bokk. Hmm. waaye dégluwuñ ni euh, li ci gën a am solo mooy ñun suñu coalition te am na plus de cent partis. Hmm. Euh, de toutes les façons bu ci ku ne defee loxoom mënta ci kenn. ah euh, l'essentiel mooy. Euh, waxaguñ ci. Hmm. mais buñ toogee ba wax ci rek luy luy gaaw a sotti la. waaw hmm. euh, je crois que question moom du problème du problème du problème pour ñun. Hmm. mais suñu sañoon du doon problème pour kenn. ndax ñëpp ñu bëgg a bokk duñ mën a bokk ci élection yi parce que aussi caution bi dafa dafa diis. dafa diis euh, tey ji yéen waa grande coalition wàllu ndax. Euh, mën nañoo xalaat wala am yaakaar ni gannaaw local yi ñu ma dinañ leen gisaat ngeen ànd euh, ci yeneen i jongante. waaw xam nga ñu nag coalition wàllu du ñu ay gan suñu biir. Mhm. xamante nañ suñu biir expérience mhm. ñu dund. ñun ñoo tànnaat librement dundaat expérience bii ñu nekk nii ah bu ñu paree nag dinañ ko évaluer buñ ko évaluer dinañ xam. est-ce que expérience bi jar na ñu continuer wala jar na ñu continuer su boobaa ñu consulter organisation yi donc rek débat direction mais débat organisation lay doon mm-hmm. bu fekkee ne organisation yi résultat yi am jàpp nañ ne dañoo war a continuer su boobaa ñu ànd préparer élection législative mm-hmm. bu fekkee ne jàpp nañ ne expérience bi ñu am jarul ñu ànd euh, élection législative également su booba ñu xool lan la ñuy def mais dans tous les cas foofu la ñu toll bu fekkee jaar na ko dina dinañu ànd législative yi mhm. euh, également préparer ko euh, tenir compte ci erreur yi li dox li doxul euh, gën a renforcer bu fekkee ne dem nañ législative également mu jar ko dinañ mën a am buntu bu ubbeeku pour envisager étape ci topp. kon daal da ngeen di bàyyi ba àgg ci. waaw waaw xam nga politique nag kon ni ñu koy waxee rek c'est la gestion du réel. Mhm. ah c'est la gestion du réel personne ne sait lan mooy xew. fii ak six mois lan mooy xew fii ak deux ans. mais l'essentiel mooy da ngay def sa projection nga dégager sa extrait. Mm-hmm. après chaque étape nga évaluer. Mm-hmm. Euh, bu baaxee nga mën a continuer corriger li doxuloon bu baaxul nga xam ne yoon bi du yoon bi nga xool beneen yoon. Mm-hmm. jërëleeg mbiru passeport yi mu doon coow gu lëmbee jamono ji te mbir mi ñu ciy tudd ñaari député ñi nga xam ne bokk nañ ci mouvance présidentielle tey ji euh, ban jàngat ngay def ci mbir moomu le waaw xam nga loolu moom mooy situation réew mi rek foolam day metti gis nañ pétrole bi dañ ko dañ ko dañ ko lijjante gis nañu euh, ñu jàpp ci ay faux billets ba sax nekk candidat dañu leen di neexal pour ñu bañ nekk candidat gis nañu euh, drogue bi li muy li muy li muy circuler ci biir réew mi ah gis nga luwaaye yi ni ñuy sonale askan wi fii particulièrement fii ci biir Ndakaaru nga xam ne fi na ni loo liggéey jox ko luyaas borom kër te nga xam ne gouvernement bi jéemu ci lenn wote na benn loi mais loi bi sax mënu ko appliquer wala mënu koo appliquer donc Sénégal moo mel loolu li ci yokk kay mooy gën a gën a dëgëral position ñëpp mooy lan moo tax gaa yooyu ba léegi nii yoon jógul ci ñoom ah bu doon euh, keneen certainement ba ni nga nugg siin waaye ñoom ñu ngi seen temps seen agenda di diggante seen i seen i soxla ñuy ay procédures yoo xam ne nii ba léegi nii doo gis dara voilà c'est ça c'est ça noonu la ñu yoree réew mi voilà boo bokkee ci ñoom lu neex nga def dara du la ci fekk même buñ la jàppee pëtëm pëtëm la duggal la ci bërëb balaa ngaa am ay weer yu génne la fa nga dem dox si soxla. voilà boo bëggee ci ñoom mën ngaa def lu neex mais boo bëggee ci ñoom nag euh, boo sëqatee ñu rek sa digg euh, ça mais loolu jarul ñu fi nekk di ko jooytu am na pexe. Mm-hmm. pexe bi mooy jële jële leen fi mm-hmm. donc il faut ñu organiser wu pour jële leen fi ni mu gën a gaawee ni mu gën a nekkee si jàmm mais également ni gën a efficace donc euh, li ñu ñoom dañ ko xamal seen bopp. nañ góorgóorlu ci liñ yàq yëpp luñ ci mën a defar ñu defar ko ah, buñ ko mënul également bon bu waxtu ba jotee ñu ñu jële leen fi teg fi beneen euh, beneen gouvernement beneen président boo xam ne nii dina yërëm Sénégal mm-hmm. dina liggéey pour askan wi du fi nekk rek régler problème waa bitim réew ah buñ su bëggee suuf mu jox bu ñu bëggee pétrole mu jox leen <laughs> ah, alors donc sénégalais yi ñoom jàppuñ si dara réew moo xam ne ni am na lépp am na or am na jamaa am na pétrole am na ndox am na tout mais ñëpp a ndóol voilà ça part en tout cas ñi bokk ci ñoom ñëpp a ndóol tout le monde tire le diable par la queue euh, ñoom ñoo ngi seen bambu la def leen neex jënd ay kër fu leen neex sa problème mu sénégalais yi la il faut que sénégalais yi réglé ko. d'accord nekk fii di jooy ci benn dossier rek du ko réglé. il faut ñun ñëpp ñu jël conscience ne. Mhm. il faut que Macky Sall dem. te dafa war a dem te incha allah dina dem. Hmm, euh, d' accord euh, général LD Debout ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm.